عندك سنة أي ميليتان يو خامن يو ميليتان دفا سر دوخ نيجي تيو تي عندك أي رسو سابل يو خامن أي مانداتير لنيو ولا نيو نيك أي تيت ليس ولا نيو نيك فيتير مير دالر كومين دالا كواليسون دفا سر دوخ تي دنيو تيو pour xamal len pour leral leral leral situation bi nga xamni suñu coalition bi nga koy dundu depuis bañ ka créer le 1er octobre depuis ba nga xamé pouvoir bi ñom yëg nañ ni que ñun téw nañu en moins deux mois dans plusieurs dans presque plus de 490 cent quatre-vingt-dix communes loolu daf leen jaaxal. daf leen tiital ba mujj gi ñoom ñiy woo préfet yi naan leen bu leen jël liste defar sa gox te préfet yi naan ah ñun de dañ ñoo wax dañ ñoo jox instruction loolu lu ñaaw la sama Sénégal ñoom ba ñu yëgee loolu dañoo jël surtout le président Macky ak ay nitam di woo suñu ay mandataire di leen jox xaalis di leen dikk xaalis pour ñu bàyyi ay li may wax preuve à l'appui lu ma wóor la woo nañ ñu bëri lu ma trois cent personnes woo nañ leen preuve à l'appui wax nag ñii jox nañ leen dix millions ñii jox nañ leen sept millions ñii dañ jox poste ñii ñu dig am na ñoo xam ni sax ba président di tukki France keroog dafa ànd ak ñoom comme que nag président la yàlla may na ko doole comme lu mu waxee keroog il a les moyens il pouvoir xaw na si jël yu bari waaye am na ñoo xam ne ay gor lañu am na ñoo xam ne ñu ngi fiy toog wala nekkuñu fi woon nañ leen digal alal ju bari ñu ni ñoom ñu war Sénégal nag dañuy foog ni Djibril Ngom bëriwuñ fi mais bëri nañ fi ñoom am nañu chance ba day nekk ay Djibril Ngom suñu suñu coalition waaye ñëpp duñu ay Djibril Ngom am na ñoo xam ne seen dignité seen dignité kenn mënu ko jënd te lu fi xew lu ñaaw la si dëkk bu mel ne Sénégal lu ñaan dëkk boo xam ne dafa tuuti waaye ay kilifa ñoo fi nekk muy dëkku Mamadou Dia di dëkku Lamine Gueye di dëkku Blaise Diagne di dëkku Léopold Sédar Senghor di dëkku Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak même dëkku Macky Sall di dëkk boo xam ne dëkku kilifa Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul Sidi Hadji Malick Limamou Laye Boukounta

ni moom dafay dund suñu ay couleur ba nag ñun dañuy jox ay couleur ñun nag nanguñu ay couleur te bu soobee yàlla du ñu dem élection ay ay couleur am xanaa comme que ñun dañoo am yar ak teggin dañoo xam luy dëkk dañoo xam luy yoon xanaa décision de justice impose ñu ko obligé ñu ko dans ce dinañ dem couleur dinañ dem élection bu ñu demee ak feuille blanche sax dañuy gagné bu soobee yàlla

boo bëggee tabax benn tabax bi dangay def lu kaaw kon affaire wute na comme ñoom bu ñu ñëwee tey couleur yi ba wute am différence ñoom ñu ni dañ koy dindi ba mu set ñu duñ si d'accord xanaa rek yoon doxu leen dëkk ñu doog a ànd si décision yoon mhm. mais pas ñoom seen bëgg-bëgg te ñoom bu ñuy jëlul suñu couleur bu ñu ko bañee imprimer te fekk yoon waxul dara ñun dinañ jël ñun suñu pexe bopp suñu moyen bopp ñu jël imprimer. suñu bulletin de vote teg ko dans dans toutes les communes dans tous les centres de vote yi nga xam ni coalition benn defar sa gox teew na fa dama leen seedeel ni président Macky Sall paralewul suñu liste ñaari at a ngi nii man tooguma président Macky Sall te suñu mboroom laa jël mooy alxuraan laa jël comme seede ñaari at mi nii Si nous moom waxu nous président Macky Sall nous que ni problème la wala problème marché wala problème bien wala problème privilège ñun romb nañu Nous ñun Nous duñu ñaan nous Nous pur dur nous day gorom les nous faire. Nous nous loxo ñun faire donc le problème ak président Macky Sall c'est des problèmes de principe et de conviction ñun d'accord ñu ak nu mu doxalee politiquement ces dernières années nan la doomu aadama mën a expliquer diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck nan la ko nit mën expliquer est-ce que yem na maanaam ñoo xam ne dañu mel comme ay xaj ak muus te lan moo war a xew ba ñu mën a ànd lu xew si réew mi kenn Idrissa Seck te mu nekkoon position opposition te mu waroon jouer rôle am lan moo xew est-ce que loolu jàpp nañu kilifa yi bu ñuy wax ak bu ñuy doxalin dañu war a doxalee doxalin boo xam ni dafay rafet ci nit ñi rafet ci askan bi mu ma nekk leçon pour le futur loolu moom mooy li wér mais suñu diggante ak président Macky Sall amul dara lu ñaaw lu ci am te suñu borom laa jël comme seede ñuy seer nag ni incha allahu ñun xam nañu président Macky dafa wér. xam nañ ñu gis na ngeen li muy def mi ngi dugg fu nekk moom dong lu nekk mbëkk def loolu nag day indi fatigue li ñaar fatigue mentale day mën na am li tax président Macky soxla premier ministre yal na maanaam ndax mënul def lépp nekk fu nekk nekk fépp en même en même temps suñu borom dong moo ko mën te moo mënu ko donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te lii wane ni lii wane ni

Il a été directeur général de Petrocel. Il a été ministre de l'énergie, hydraulique et mine. président Macky Sall a été ministre des Transports. Je ne sais pas si ba mu ba mu président moo assuré intérim président Macky Sall était ministre des sports ndax ba bu leen président Macky Sall moo dàqoon Guy Stéphane bu leen ko président Macky Sall été ministre de l'intérieur premier ministre puis président de l'Assemblée nationale mu jeex mu opposition en 2009 il a fait le tour du Sénégal il faisait 100 km par jour Il fait ak nit ñi di dugg a village yi kooku dans la En 2012 a ñëw nekk président bëgg de Sénégal changer Sénégal en un temps record Il il est seul dafa Il day bantal day il mi ngi jàng rek la muy jàng jàng jàng ba bëgg ñu commencé ñun wuñ ko ñaan luñ ko dañ ko ñaanal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp incha allahu dinañ dem élection kenn mënuñoo tey dem élection attestation yi war yi dem élection yor nañ ko ñiy wax naan dinañ dem ak duñ dem ñun dañuy dem incha allahu dañuy dem problème couleur moo fi nekk te dañuy xaar décision de justice ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ngi gërëm waa xar yàlla waa Grand Yoff ñi nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi ànd ñun suñu côté di xeex ak ñun mënuñu leen fay نقلن قلم دلنا سنت إن شاء الله بدنا ورب إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد